commissaire loolu Gambia. non Gambie sama réew la yow tamit ah. waaw. commissaire doomu ndeyu Balla Gaye ak Sa ak Sa Thiès xam nga ne Sa Thiès dafa war a bëre le 26 waaw juillet juum. Ah. juin moom Moussa Ndoye. da ngaa tiit yow di jaawale bés yi. yàlla tere ban tiit. Ah. kii mooy président fan si club Balla Gaye 2 Fafa Cissé mu ngi nii waaw. ana Balla. mu ngi waaw. daa mel ni ren li ngeen li ngeen raam koo di seen Balla jël na benn mook Moussa Ndoye mais àdduna moo laaj loolu fu mu toll nii Balla dafa pare moom bu mënoon jël cinq combats sax baax na pare na ba dañ koy ñaanal gudd fan ak wér ak rek waaw mais man dinaa la laaj sa digge que yow foog ma laaj la sa diggante ak parce que ba dama yàgg dégg Balla Gaye de boo koy buy tudd ay tour ci télé wala rajo danaan commissaire ma Mandiaye lamin Golo yéen ñooñu seen seen diggante nu mu demee waaw loolu dafa yàgg nag maa moom boobu bëreegul woon. loo ci mën a wax waaw boo bëreegul woon nu mu demee woon. non Balla kon li mu mën a wax ak moom maak moom sama suñu diggante. relation bu nice la. da nga ne boobu bëreegul. ngeen xamante nu ngeen xamante lan moo leen. entraînement école bu musul takk ngemb école lañ xamante ñuy demlante di dikkalante wax dëgg yàlla ku baax la waaw. mel ne tey foo ko gis-gis la maanaam fu ñu ko gis nga taxaw ci wetam. waa sama doomu ndey la sama xarit la wax dëgg yàlla. non non jël naa keroog benn boroom xam-xam bu yëngu ci wàllum karaate ñu koy wax Dame Ndaw dëkk ba Kaolack samedi dimanche comme tey ca stade Fatick ba ma laaj ko combat mu jàngatal ma ko ne ma Balla Gaye na def attention si booy ñaa moom moom ca booy ñaa la wax. parce que nag xale la boo xam ne boo am technique la boo am tactique te itam bu ko Balla saxsee man nam lu ko bet yow loolu noo ko gisee. bu ko Balla saxsee non Balla Gaye 2 ak booy ñaa loolu man jàppewu ma ko sax si combat. commissaire yow itam du combat te ngay jël avance. waaw d' coow moo ñu moo moo ñu boole coow. coow amateur yi ñu bugg làmb ji bokk. amateur ñu bëgg Balla Gaye 2 booy. booy ñaa liggéey xanaa. mais Balla Gaye 2 yow tamit dafa may booy ñaa sens. da ko may sens Balla Gaye 2 ñim daan booy ñaa daanu leen ñim bëreel booy ñaa bëreewul ak ñoom palmarès bu mu am booy ñaa amu ko nañ waxante dëgg Balla Gaye 2 du moroom booy ñaa bu mukk si àdduna te bu jour baa ngay xam ne du moroomam. lii bu ngeen demee ci combat maa du ngeen ci am leen ba bett. Euh, ñun nag duñ demee noonu duñ demee noonu. ñun naa bëri te am na encadrement. dafa fekk ku ko dàq bëre ëpp ko doole gën ko ay encadrement maa wax li te looloo am. te xam nga ne yow sax xam nga ne yow looloo am. man kay xawma loolu man kay yaa yow kay yaa ko xam ko. xam nga looloo am. loolu mënu ma koo xam. fii Sénégal laa la wax. àdduna la Gaye 2 kenn ëpp ko entourage bu baax. kenn dàq ko fi bëre kenn ëpp ko fi doole. ñu ne ne waay jee du Gris Bordeaux. waaw yéen sa balaa booy ña yéen balaa ngeen di jéggi pomme Bombardier boobu du garaaw. waaw bomb baax na curux carax lañ koy indil bi paas bii di ñëw. carax mooy dugg génn. curux carax waaw. ay dóorante yi déedéet curux carax dañ koy bëraloo ba mu xoox ba mu sonn curux carax curux carax ponkal la. da yaakaar ne ponkal mu mënta bëreel. mënul bëre Bombardier fu mu mënee bëre. Bombardier mënut a bëre Balla Gaye de moo ko dàq bëri foofu te ëpp ko ëpp Bombardier ëpp ko doole te bés baa nga xam ne Bombardier ëppul doole Balla Gaye de. boobu du ragal de commissaire. waaw d' accord naa du ragal de mais Balla Gaye de tamit. boobu daanoon na leen de. waaw d' ak façon bi mu ñu daanee woon ak ni ñu nekkee woon. daa am façon. waaw daa am façon Balla Gaye de période boobu mënu woon daan man mi période bi muy dem di bëri ji ak Bombardier man mënu woon daan. yow maa di saltel ndamal jàmbur. non salté lu ma am laa lay wax parce que dama ko dund xam nga. parewut ngeen bu ñëw ci làmb tuus ñu tëggal ko mu euh, arbitre suuf li mu wër nga ko. papa moo tëggoon làmb ji papa moo tëgg barke Seydina Mohamed Balla Gaye de bëggoon naa ko jam pour ñu renvoyer combat bi laajte Lamine Golo. jam la dama ko bëggoon a jam pour mu ñu dem ut certificat médical mu yàqu ko laajte Lamine Golo. paaka jam ko Balla Gaye. semaine boobu noonu dama xam ne kii nekkul si dara. li ma lay wax ni laaj ko ko moom wala nga laaj ko Lamine Golo. doy na waar. billaay dama ko bëggoon a jàmm parce que nekkul woon te dara semaine boobu noonu mais comme Aziz Ndiaye suñu papa la moo tëggoon làmb ji xam nga te bis boobu noonu jamono jooju nag ni làmb meloon sax làmb da doon waaj a yàqu boobu mu doon doon sauver honneur bi. mais boo ko jamoon mbaa du jur leneen yow jam jam. waaw dama koy jam si pooj bi dama koy dagg si pooj loolu laa bëggoon. mais bi yoon daal xalaat nga di ngeen pare. non pare nañ bi yoon koy loolu koy wax bu yàqu la. Bombardier de gars yi nañ ràññat lewut jaañ ak joor ñooñu avant juillet da nga may laaj juin muy musaa Ndoye waaw Sa Thiès gis nañ ko fan yi Sa Thiès Sa Thiès est-ce que poids am bëriwul Sa Thiès Covid bi yëpp da ko entraîné non bi waxuma entraînement poids bi mu yor ne est-ce bu baax la naturel la ci moom daal attan na boppam Sa Thiès musul ñàkk at attan boppam parce que man bu ma leen xoolee seen photo yi Moussa Ndoye da yaram bi da xam ne physiquement moom dafa dagg complètement day mel ni gisoo si moom Grèce mais Sa Thiès da nga gis si moom benn volume boo xam ne nii c'est Sa Thiès mbër la boo xam ne ci suñu gis-gis dafa vif dafa gaaw est-ce que bu yoree euh, euh, poids boobu est-ce que dina am rapidité pour pour bëree ak Moussa ba léegi dafa gaaw te bu jour baa ngeen xam ne kii dafa mobile. te Moussa Ndoye nag du du du du nekkul como de commissaire. waaw ah, bu jour day doon como man maa la wax li bu jour dafay doon como moom Moussa Ndoye yaraax lay jóge de. yaraax lay jóge ñu jóge géejawaay. ngeen daje arène nationale. waa du yomb. nga yaakaar ne da ngeen di ñëw rek jàll ci kawam jàll. non xam nga làmb amul jaar si ci mu jàll. mbër la Sa Thiès mbër la ba arbitre ne prime nga xool retour de Sa Thiès du yomb. parce am na ñu bëri tamit ñu ngi leen di nañ da ngeen a jàppee ne Moussa Ndoye lu yomb la moo tax ngeen bàyyi fi yeneen gars yi bàyyi fi garga bàyyi fi rëg-rëg dem jëli ko garga yomb googu du mu indi leneen. non combat boo xam nga nu mu demee garga lañ doon dox taxawul si problème mu kase la si côté garga taxawul mais Sa Thiès tamit du toog xaar koo xamante ni nii pareegul. mais Reug Reug moom dégg naa lañ leen fa bëri woon na de. non Reug Reug moom suñ ko wax Sa Thiès Reug Reug non non Sa garga laa dégg ak Sa Thiès Yékini Junior Yékini Junior dañ ko woo mu ni moom mu ngi Europe mënul nekk foofu di taxawal combat fii. waaw. ñu dox mu Moussa Ndoye mu taxaw. wax loolu. non loolu lu xam. boo jëlee wax yow. non si nit ñi si journaliste yi. Ah, journaliste yi moom mënuñu laa wax loolu. déglu rek si promoteur bi. ban promoteur moo wax. non ma wax ban promoteur. du ma wax Yékini Junior ma Yékini Junior kay mbër day nekk Europe signé fi. parce que moom am na ah, Yékini Junior am na am na koy jëlal xaalis. dëkkee micro Sa Thiès nga loolu. loolu moo am. Moussa nag dañ koy ñaanal moom mi dem nangoo jël Sa Thiès. dañ koy ñaan ñaanal gudd fan ak wér ba jour ba ñu jàpp ko daan ko. jàpp ko daan ko daal nga yaakaare. waaw loolooy am. bu soobee yàlla loolu làmb parce que làmb ji am na ñoo xam dañ ne dafay est ce que Sa Thiès ji dina ta ci moom parce que buñ nee rëg-rëg ne Garga Mbossé wax nga léegi noonu Yékini Junior ak ñeneen ak ñeneen démb sax jéen kayri dégg naa dégg naa papaam micro mu ne tey à part VIP amul benn mbër boo xam ne nii da ngay may jiin kayri sens à pi VIP la wax kon yéen sax yéen a ngi ci biir ngeen yaakaar ne kon est-ce que yéen fi ngeen jëm nar ta dëgër. waaw ñun bu ñu jógee fii duñ xool ñooñ ñun VIP la ñuy xool pourquoi pas Sa Thiès Eumeu war na mën a taxaw. Eumeu Sène da lakkal ngeen ko. grand contre petit la ñu wax comme Balla Gaye 2 may na booy Niang sens Eumeu Sène bu ñu jógee ci combat bi na may Sa Thiès sens. Diène Kaïré ci petit yooyu. may na Ama Baldé sens grand contre petit la. Diène Kaïré bokkul ci petit. comme petit comme moom ak Sa Thiès waaw bu leen lamb boole ñu bëre jën mbër la champion la mais Sa dafa nekk si yoonam. kii mhm. waaye ren li ngeen ràngoo bëri na daa mel. waaw yàlla nañu si yàlla dafa sutura rek lépp ndam waaw. Omar kañ nga mujj a dégganteeg moom. Omar semaine passée rek avant muy ñëw fii waaw. Mhm. dégg naa léegi sax ngeen am seen seenu bopp ah. ah mais gis nga. waaw dañoo am suñu seenu bopp waaw. 2 heures de TV. waaw mooy bomb Babacar waaw ana Lamine sa doom day mu gis Lamine boo boo ko xoo boo gis ko sama wet xam naa Lamine moom duñ sorante gis nga waaw waroo leen sorante moos waay waaw gis nga yéen ñaar waaw xam nu koy waxee mu roog soow la xóoyal naan wala nga xóoyal tuur waa gis nga maa la wax loolu de <laughs> mënta ñàkk comme kontaan ci yow. waaw bi doomu ndey ok ah, jaajëf.